par la légèreté des documents quand on sait que le prévenu est un avocat. est un avocat document yu mu yor c'est-à-dire quelqu'un qui est un avocat tu dois pas yor ay documents yoo xamante ni da ngay wax ci lu léger waxuma la tuy candidat bi un avocat mu wóor na ni am na loo xamante ni su yoon dalee ci kaw am na loolu ci mën a fekk. loolu nit da koy moy fii. maintenant sur le plan politique sur le plan na si mën na tekki dara. oui am nañu jàpp ni c'est stratégique. non dafa amul parrainage dañoo ubbi parrainage yi peut être amul na nombre de parrainage bañ na ko wax bañ na nit ñi xam ni il n'a pas le nombre de parrainage requis mu dem wax toj toj bi pour ñu dem dugal ko rëbës quelque temps su au lieu de parler qu'il n'a pas de qu'il n'a pas de parrainage au lieu que les amul parrainage. les gens diront que dañ ko jàpp rëbës. mais man pour se faire victime parce que man recevoir naa ko y' a pas très longtemps mu may won ci téléphone euh, ñoom ñëpp dañoo demande yu bëri yi nga xam naa ci parrainage ci ci millions nga xamante ni jot na ko par rapport ak parrainage. j'ai dit ci sa téléphone lay wax demande yi du jot ci parrainage. y' a des candidats yoo xamante ne on a dit issu le gars qui a qui a qui a qui a qui a qui a volé le le le fichier ba jaay ko Mimi Touré ak nangam il a été arrêté maintenant non. ce ce Amadou Diallo là il a été arrêté. il a devait être publié. non non non non code électoral waxul loolu. code électoral waxul loolu code électoral dina ay nit ak a bind. non dama ne code électoral grand grand. il faut ñu partir à charge égale. grand tegal tegal tegal ci teg grand aw ma ko. grand te ngeen di candidat may. candidat moi je dis taxawal taxawal ay ki distance de teg. dama ne fichier électoral boobu. nee nañ dañ koo jaay ñaari candidat ki ne jaay nañ ko ñaar dañ ko jaay ñaari candidat mm-hmm. jàpp nañ ko. Mm-hmm. kooku tamit dafa war a leeral fu mu jëlee fichier effectivement mais est que réellement li mu wax am na. parce que aussi on n'a pas le droit di teg ci table ji loo xamante ni dara amu ci muy affaire fichier électoral bi muy affaire. Euh, Maître Moussa Diop Maître muy affaire vingt millions de dollars yi. dafa war a leer askan bi leer ci bopp ñëpp. ku ci milliards yi aussi. non j'ai lépp laa wax dama ne. toutes les déclarations faites muy 94 milliards fa laay commencer. très bien. 94 milliards yi ñi ko waxoon ne am nañ preuve nañ ñu àndil preuve 29 milliards yi waxoon ne am nañ preuve nañ ñu àndil leer na. waaw non non je ne parle pas de Brahim wax ni am na preuve ñu ko cay téléphone. non bàyyi rek bàyyi ma ñëw. ñi taxawoon ci six ci six mille non defal ndànk waaye grand grand dig ma déglu nag ma ko de ci waxoon ni am nañ nañu àndi seeni preuve te ay dag la yaa ngi ko xam ñi andi accusation yi ñu defoon ci ay nit par rapport à des à de l'argent et autres ñooñu nañu andi preuve parce que Sénégal warul nekk réew boo xamante ni nit day taxaw ni dé nit détourne 94 milliards teg ko ci waxi kasaw kasaw. du kasaw kasaw. est-ce que tu comprends nit yor na dugal na 20 de dollars dans un pays ci waxu kasaw kasaw il faut que réew mi dépasse loolu ça veut pas dire que nag opposition lu mu wax ci loolu dëgg la ñee lu ñu wax c'est pas vrai ñu toog ci réew mi scandale yooyu ñuy wax entre guillemets ñu éclat de seuil depuis le début jusqu'à présent ñu leeral ko ba mu leer nañu te ñi ko waxoon ne déterminer nañ ay preuve nañu génne preuve yi teg ko ci mbedd mi ñëpp gis balaa ñuy fal président de fii ci réew mi. ubbi nañu ubbi nañu ubbi nañu démb nga xamante ni moo ñeel moo ñeel déposé liste man li ma jaaxal dans cette histoire mooy candidats yi dañu doon bëri yëpp pratiquement plus de deux cent et quelques candidats mais man gis ñu bëri ngeen. nga am na ci koo xamante ni tey jii balaa may ñëw ci parrainage bi am na ci ñoo xamante ni kay tey jii lay def live am désisté na ci nee na matulul 15 millions te sénégalais yi ñoo ko waroon nattal 30 millions yi muy la candidat Thione ñu ngi koy xaar live mu wax ni muy wax yaa ma ko wax de sa sa sa statut yaa ngi comprendre am na ci ñoo xamante ne amuñu le nombre de parrains requis soo demee cause de dépôt de consignation ñëpp a déposé seen caution bariwuñu gis nga coow li moo bari mais 265 yi jëloon candidat fiche yëpp fi mu ne nii ñu ngi daw di wuti ay coalition bu dugg <laughs> au plus offrant l' affaire des candidats à élection présidentielle du lu yomb. man de ñu ma fi dégg ñu joxe caution bu réegul. dama ne ay ñoom maître sa candidat bi dafa déposé ki ba léegi déposé wu caution. le colonel naa n'a pas encore déposé de caution. mais mais waroon nañ ko ko laaj il n'a pas le nom de colonel El Hadj Diouf sàkk vingt trois mille parrains à à à Touba soo jëlee la somme des parrains déclarés. ah ça dépasse le fichier électoral. soo jëlee les deux cent soixante cinq candidats nga multiplier ko par cinquante mille parrains. c' est treize millions et quelque ça c' est le double du fichier électoral. est ce que loolu jaar na ci réew. est ce que tu comprends moo tax lii am na ñu war ci jàng war a teg benn caution soo waree jël si fiche électorale fiche fiche fiche pour permettre aux gens ñi nga xam ne amuñu les moyens pour nekk candidat wala ils sont pas sérieux duñ ñëw di jëkk récupérer les fiches de parrainage. d'accord parce que loolu moo mais ñi ci nar a dem xam nañ du ñu bari parce que les candidats beaucoup de candidatures ne sont pas sérieuses c'est des candidatures de négociation. Mm-hmm. ñii pouvoir bi la ñuy négocier après ñii l'opposition la ñuy au plus offrant ki nga xam ne dañ koy wóor ni suba su jàllee dina dem. moom la ñuy daw rajo ci gannaaw pour négocier di des strapontins et des prébendes. et ce pays là. oui n'est pas un pays où on doit négocier des strapontins et des prébendes. d'accord merci Adama man foofu laa ko oui commissaire loolu laa commissaire rapidement maintenant nag ci weddigu tey bi bi damay tëj weddigu tey bi bi na nit ñi nangu décision bu parce que une décision de justice ne se discute pas et qu'on sache que si c'est la réintégration elle n'est pas automatique d'accord D'accord. Ça doit prendre une procédure. Oui, commissaire, rapidement, procédure. par rapport à euh, les propos de maître Moussa Diop <laughs> ak euh, lépp lu nga xamante ni jot nañu ko waxtaanee ci plateau bi. Sincèrement, euh, affaire au maître Moussa Diop, moi je me suis très vite fait une religion par rapport à ça sans consulte de personne. Xëy na c'est mon métier qui m'a poussé à dire que il est dans des fabulations dafa am benn motif bi nga xam ne du li muy wax. Ah. mais leneen moo tax muy wax. maintenant il y a eu des spéculations telles que il veut se retirer amul euh, amul. Euh, parrainage parrainage. Ah, il y en a d'autres qui disent que bon il est dans dans dans dans une position oppositionniste day créer beneen contre-feu fële pour essayer de noyer cette histoire de 20 millions mais moi ce que je retiens fondamentalement c'est que c'est lui qui nous doit des explications parce que effectivement il n'a pas fallu plus de deux heures de temps après sa déclaration pour qu'on se rende compte de ce que dafa bëri ay confusion yu nekk si nga xam ni les instruments de langage yi mu utilisé y a des inadéquations fi mu wax ni fa la fa la fa la fa foofu jama am am. du am ainsi de suite ainsi de suite on est dans le dans le dans le Djeri on est dans le Waalo. Mmh. on est dans des zones de sable. où tu pioches avec avec avec une pelle pour pour pour creuser un trou de 100 de profondeur on n'est pas dans une zone rocailleuse. te soo amee tuuti culture ci li nga xam ni moom mooy minerai da ngay xam ni loolu mënut a nekk c'est pourquoi j'ai dit qu'il est dans des fabulations donc euh, c'est à lui de nous fournir des explications sur les raisons de son comportement d'autant qu'aujourd'hui euh, le euh, c'est devenu clair que effectivement li ma doon soupçonné moo am tout ce qu'il tenait euh, euh, Fall dit que on lui a filé des documents qui sont qui sont qui sont qui, de faux documents dégg naa loolu yi tamit mais ça ne le défend pas tey fii Sénégal toll il faut que des gens comme ça qui prétendent diriger ce pays-là qui ont eu surtout à assumer des responsabilités dans ce pays-là il faut que ñoom ñu delloo ñu li nga xam ni moom mooy li ñu amel réew mi c'est le sérieux hmm. c'est le sérieux ils doivent être sérieux warloo wàcce ci penc mi li nga xam ne lu mel noonu bu donc moom li mu ci jëlee nii c' est tout à fait légitime. pour un avocat surtout pour un avocat pour un avocat. heureusement heureusement que euh, dans l' il y a plus de silence que de tentative de le défendre et c' est très bien.

c'est un peu ça quoi une attitude de principe parce que c'est un opposant tu es un opposant et comme la règle au Sénégal c'est que tous les opposants sont des opposants <laughs> contre un régime il n'y a pas de patriotisme exprimé à l'intérieur de euh, l'opposition on ne défend jamais le Sénégal on ne défend que des intérêts d'opposition moi je comprends que tout le monde que personne ne le critique dans l'opposition ceux qui le critiquent ce sont les Sénégalais lambda les Sénégalais les, les, les notre opposition l'opposition à l'opposition qui est le camp du pouvoir ñoom ñooy wax nii du nii du nii du nii du nii mais dans l'opposition on va faire profil bas certains ont, ont espéré que c'était la grande bombe effectivement même ci wax la grande bombe qui allait éteindre cette histoire de douze milliards. Oh mais ça n'a pas été ça et c'est dommage. je voulais terminer sur un truc pour mon ami. Euh, Birame Khoudia Birame Khoudia Birame Khoudia Birame Khoudia dama certitude bi ngeen am que ni su ëllëgee yéenay diriger réew même si Ousmane Sonko était candidat nous nous donnons la certitude que mënu leen que. vous ne représentez pas plus que 15% de cet électorat-là, et, comme ça, et tout l'a prouvé depuis très longtemps. Maintenant, Non, laisse-moi terminer, c'est mon tour de parole. Le vacarme que vous soulevez tout le temps là, gauche, oui, le peuple ascanoui, le peuple ascanoui, c'est des chimères, c'est des techniques de manipulateurs, c'est des techniques de populistes. Ça, on les connaît, ça a existé ailleurs, et ça a permis à d'autres d'arriver au pouvoir. Fenen, Hitler est arrivé fii du li ngeen toll moom ngeen di toll 15 pour cent yi ngeen amoon 2019 avec toutes les catastrophes que vous avez traversées amatu leen lu ëpp loolu tey nag vous êtes obligé de peinturer de peinturlurer tout pour ñu foog ni Ousmane Sonko wax nga ma plusieurs fois Ousmane Sonko est plus populaire que toi mais oui il plus populaire comme c'est un la présidentielle ah, mais ça ne fait pas de lui qui a non je parle pas de Amadou Ba après yow nga wax lu la neex ci Amadou Ba <laughs> ça ne fait pas de lui quelqu'un qui pèse plus de 15 pour cent il faut que la presse nous y aide aide les Sénégalais à se libérer de ces chimères là de quelqu'un qui su ñuy calculer politiquement résultat am diggante 2017 2018 2019 2022 dernières élections yi matul 15 pour cent. Mm. matatul 15 pour cent les tonneaux vides font tellement de bruit que ils sont en train d'incendier le pays vous ne passerez pas en 2024 même si vous avez Sonko candidat merci beaucoup. d'accord bi mooy mooy wax dëgg yàlla tàggatoo wax dëgg yàlla Moussa Diop wax dëgg yàlla propos yooyu bu ko defee il n'est pas sérieux waaye kii wax ni am na 3 millions cent mille parrain tamit te xam nañ ni mbedd mi boo fa génnee doo gis ko kay. pare parrainé ndax kooku yokk ko jox réew est-ce que il est sérieux est-ce que kooku dina mën a jiite réew nañu bàyyi lu dul sérieux xam nañ ni 3 millions 700 mille parrain kenn amu ko. di nga tàggatoo. <laughs> maa ngi leen di gërëm di leen sant bon euh, je suis très content de participer à ce débat là. ce sont mes gens de toute façon ñun ñëpp benn la ñu ah on débat comme ça. maa ngi leen di gërëm di leen sant. ñu ngi lay gërëm aussi Birame Khoudia Lo. waaw <laughs> ah, moom moom sincère na trop koo xamante ne day fréq day fréquenté <laughs> salon de massage da nga koy jox ko am sagesse am pertinence am responsabilité am compétence xam lu mu mën xam réew mi xam les enjeux sécuritaires de ce pays là sooy jox réew kooku nga koy jox mais doo ko jox koo xamante ni day fréquent yëfu yëfu xale lay def sa bële bi rafet na rek nga commencé xaabaabal <laughs> dégg baax loolu la maa ngi gërëm nit ñi di leen jox wàcc waaye di kontaan ci yow di ko nuyu moom it sama waay la ak ku nu mun demee suñu débattre ba pare coow li dina bëri mais après on se retrouve ñëpp sa invité la ci biir kër gi la ñëw et puis nañuy ñëw nañuy ñëw suñu leen woowee bu ñu jafee bu ñu moom moom moom dafa accessible moom dafa accessible wax dëgg Bon, le ton a été très haut, mais c'est là qu'il faut que ça s'installe. Il faut que ñu xam ne affaire bi duñ ko bàyyi ak ñoom ak ku mu mënti doon ci opposition bi duñ leen ko bàyyil et nous on ne se reproche pas ce qu'ils nous reprochent. Rassurez-vous par rapport à ça. Nous avons le sentiment d'être très honorable, de défendre un président sortant extrêmement honorable. Musut am. que dites-en ce que vous voulez et de défendre un candidat qui peut tenir le pays. Mm-hmm. Et nous sommes certains d'être les bons joueurs. Maintenant les outsiders n'ont qu'à se présenter comme ils veulent. Yàlla na leen jàppale lu nu mais on vous battra. c'est certain merci beaucoup. bu leen ragal Ousmane Sonko. en tout cas en tout cas ça a été un <laughs> plaisir.